nous monté le comité électoral bu Thiès Est dama bëggoon rappeler des principes comité électoral vous ko dee monter moom organe de coordination liggéey bi ñuy def maanaam li def sur le terrain mu am coordonner mais loolu nag le leen ñu comité électoral boo 14 personnes ñoo ci adjoint bien sûr nous xool les partis politiques yi ni ñu nous ñu xool salle bi nous toll léegi loolu moom mooy nous sommes à l'intérieur et di wax ne li gën a am solo moom mooy liggéey bi nga xam ne dinañ ko def après ci comité électoral yi nga xam ne autour des centres de vote donc nous savons que c'est symbolique pour que nit ñi comprendre tey bu amee kenn koo xam ne bokk na affaire nekk dans le comité électoral nañ jàpp ne ñépp la toogal kenn ku nekk à ap ñépp la toogal képp ku nekk PUR ñépp la toogal te tey jii intercoalition bi dama bëgg loolu ñu ci def euh, di ci teg suñu loxo pourquoi parce que parti opposition yépp suñu àndee bàyyi seen intérêt personnel loolu moom mooy élection yi ci boppam dañ ko war a gagner te ku war a gagné waroo caaxaan waroo perte temps et je pense que lii nga xam ne moom la ñuy def c' est rek mais mënoon nañu comme li waa ji wax xam jomaay li mu def nga xam ne mënoon vocal message am bi li ñuy def nii mënoon nañu ko vocal rek ñëpp jot donc je pense que il faudrait que les gens comprennent ceci ba pare ñu xam ne ñi jël ay responsabilité ñooñu ñoo gëna a sonn sax ñuko ko jëlul dama bëgg ñu ci bayyi xel parce que souvent nous ñu un comité électoral da ngay jékki-jékki rek génn woy nekuma ci lutax tax diw nekku ci nangam nang ça va être compliqué et pourtant chaque année dañuy ñëw def comité électoral et japp naa comité électoral bi ak nima gissé la composition de la coalition suñu lo tout, on va gagner ces élections là donc je pense que lolu moy que maintenant nak waxtaan nañ biñu waxtané moy ñi nekkoon fi ci biir di waxtaan

ni dem Bayal ni dem eglon euh, ni je pense que suñu ko defee def une certification exemplaire du travail je pense que le travail sera gagné ñu def focus sur certains quartiers yo xamanteni ni il faut que ñu fa nek ñu jappalé euh, jàppale ji r100 il faut que ñu jappalé ji len tête de liste fa les dëkk Modakam il faut que ñu jappalé ji len Jamagan il faut que ñu jappalé ji len yenn euh, centre yu melné ay euh, Ablaye Yak na yooyu pourquoi je le dis parce que dafa am centre yo xamné ba ci cité Senghor gël nga xamné ne fa la Pape Diop miy dëkk il faut que nit ñi ñu jóg avec force pour dem wax ak nit ñi parce que dama bëgg ngeen xamné élection yi passé war na leena jox exemple ñi leen gañe xamu leen leen ñu ci bari seeni koñ ken xamu fa responsable Pastef et dañ leena a parce que nit ñi ñom ñoo dem voter ji te ku nekk xam na ne boo waxalee yàlla fi nga dëkk nous nga que ne avons voté Pastef tey ñu bari réccu nañ législative en général le taux de participation du bari parce que nous, ñi dañuy découragé ci président nous ñu faloon et ne nous voté nous te voté renforcer le camp du pouvoir parce que nous, ils feront de sorte que l'ensemble de leurs militants dem voté donc nous, avons am intérêt dox ak wax parce que Mbaye Jacques dafa ma daan wax politique ñaar la dox ak wax manam dox dem ci nit ñi wax ak ñoom ba fal dox ak wax li rek la parce que souvent les gens disent oui on n'a pas de moyens nangam nangam effectivement moyens sax légui lay gëna ñak ñàkk nekk opposition mais ñun on avait tous les moyens et on nous a battu donc nañ jël exemple ci ñu gañ dem ci nit ñi waxtaan ak ñoom y aura un minimum bo xamanteni dina am parce que boy liggéey am na xamné dina am mais lolu ñu bañ ci def suñu xel trop bañ ci que def engagement boo nous ne nii engagement la ak le peuple sénégalais parce que nous sawaay li ñuy dund ci 7 mois yi nous na lool ëpp na de pour nous abréger il faut que nous ayons une majorité te damay fàttali souvent dañuy nax nit ñi naan non suñu majorité doo le premier ministre boo jëlee majorité assemblée nationale c'est toi qui gères le gouvernement avec le président de la république su boobaa au moins ki nga xam ne du wax dëgg suñu premier ministre au moins c'est clair et je pense que l'on, si on a une majorité, on reprend le contrôle du pays. Ça, c'est très important que nous de Non, non, non. Il y aura des députés qui seront élus. Mais tu reprends le contrôle du pays. Et je pense que l'OLU doit Et je pense que euh, wax aussi, pour d'abord

tey jii le premier ministre ci boppam mooy recevoir nit ñi ñuy transhumé mais comme ni may wax rek ñooñu ñëpp ñi ngi woon ak ñun ñu gaye ñu peut-être bu ñu demee ñun ñu gaye wax ji yëpp loolu la de ñu àndoon ak ñun di ñu ruube wala ba ñu fexe ba ñu gaye ñu ñooñu tey yàlla def na ñëpp dem nañ xam naa looloo tax ñuy gañe bii di ñëw donc je pense que ça c'est important donc maa ngi leen di liiral parce que wax nañ ni muy demee bureau bi c'est consensuel. dañuy waxe gémmiñu ku nekk fii di xalaate xelu ku nekk fii am na nag loo xam ne munul daanu dajul suuf comme ni ma leen ko waxe ku nekk dafa am ku la toogal dañuy lire la bureau consensuel ni ñu ko defee yoo xam ne entité yépp ñi ngi ci suñu paree ki nga xam ne moom lañu désigné comme ordinateur ñu désigné ko jox ko parole moom mu wax kañ lay convoqué bureau yi wax nan lañu ñu nar a ak yeneen ak yeneen ak yeneen je pense que comme ça ñu mën a yëkkati kàddu gi parce que euh, ndaje bi parce que yàgg na nit ñi yàgg bi xaar na xaar bi yàgg na donc léegi pour euh, le bureau il y a 14 commissions un coordinateur et des vice-coordinateurs maintenant chaque parti politique parce que am na ñoo xam ne mën nañ leen bañ a tudd seen tur mais seen parti désigné leen ñu nekk adjoint deuxième troisième ou bien membre d'une commission chaque parti va après donner au coordonnateur désigné les membres qui nga dans les différentes commissions je pense que là aussi il faut que ça soit clair pour que ils seront pris en compte maintenant pour le coordonnateur c'est Abdoulaye de 2AP Sibi maa ngi wax kenn kenn tàccu

dina joxé des membres de la commission encore une fois di len wax né les postes yi gëna am solo moy au niveau de la base parce que comme ni ñu leen ko waxé gis ngeen li ñu def ni moy wane né ñi nga xamné ñokoy défar sax ils sont pas dedans parce que pour wane né dañu bëgg ñëpp bok ci parce que lu ñëpp bok dañ koy waxtaan lu ñëpp bok dañ koy défar ba mu baax lu ñëpp bok ku nekk daf ci am li nga xamanteni ni xel mu rafet et comme nous ma dit, si on s'engage à nous tous à aller vers l'essentiel c'est-à-dire vers les populations la victoire est proche donc je vais donner maintenant la parole au coordonnateur du comité électoral de la coalition l'intercoalition Takwalu-Samusakadu, à Ablaye pour lui euh,

Vous leen wax les quatre investis titulaires yi pendant la campagne suppléant à ak yeneen dinañ s'il vous plaît s'il vous plaît ki nga xam ne moo jiite liste bi mooy monsieur Moustapha Mbaye beaucoup, parti bi ñuy wax PUR bu Serigne Moustapha moom mooy nekk tête de liste bi ñu bari gis nañ ko ci lancement département départemental bi ñu doon def ci comité électoral bi ki ci tegu mooy Hélène nekk ci Sénégal bu Khalifa Sall ki ci topp mooy Mor Diouf bu parti démocratique sénégalais ka nga xam ne moo ci topp nekk jigéen aussi di Astou 6 nekk alliance pour la république dama bëggoon ici aussi devant tout le monde remercier le président Idriss Seck et son parti parce que nag grandeur grandeur weesuwul ku ne xam na defar ab liste Thiès te Idrissa Seck bokk ci c'est parce que amna ay jafé jafé yoo am ndax nak buñ né Thiès né Idrissa Seck suñ nee Idrissa Seck né Thiès et ay responsable yi nga xam ñoo nek ci réew mi suñu amé dépassement né ñun réew mee ñu tax comme niko sen parti tuddee Sénégal nous avons l'intérêt du Sénégal au-dessus Nous avons ak du Sénégal donc nous bëggoon ici solennellement remercier le président Idriss Seck et tous les responsables et militants de Réunion. je le dis au nom de tous les membres de l'intercoalition donc monsieur le coordonnateur vous avez la parole Assalamu wa rahmatullah Ma suis venu ku ce tour et je voudrais avant l'entame de mes propos rendre grâce à Allah prier sur le prophète euh, Mohamed sallallahu alayhi mais également remercier l'intercoalition qui m'a porté sans pour autant me consulter je viens tout juste d'apprendre que je suis le coordinateur du comité électoral de TSS. je pense que ça, c'est une grande considération, mais également c'est une, reconnaissance qu'ils ont eue à, l'endroit de ma modeste personne. Mais en remerciant ou bien en saluant l'intercoalition, je voudrais d'abord rendre un grand hommage à un grand homme, son excellent président Macky Sall, qui la tête de liste de la coalition au Sénégal avec de grands éminents politiciens ici au Sénégal qui ont eu à servir notre pays. Et je veux nommer le président Abdoulaye Wade. Je veux nommer le président Idrissa Seck. Abdoul vient de me dire. Je pense qu'aujourd'hui, le président Idresek a eu à montrer que c'est l'intérieur supérieur de la nation qui est au-dessus de nous tous. Bien vrai qu'il n'a pas été investi, aucun de ses responsables et militants n'a pas été investi sur la liste, mais à Thiès, mais je voudrais euh, réitérer l'engagement de notre cher grand frère Idriss Seck, qui porte pièce dans son cœur et qu'aujourd'hui, on salue la présence de notre frère Lou, qui représente ici le parti Réunion. su ma jógee damay sant d'abord kilifa diine yi nga xamante ni ñoo nekk ci dëkk bi ndax tey Thiès ku ko xam xam ni dëkku diine la dëkk boo xamante ni ay mbokk lañ nuyu sunu xalif généraux yi nga xamante ni ñoo fi toogal diine yi ñi fi toogal tarixa euh, Cheikh Ahmadou Bamba maam borom Touba nuyu mun Mountakha di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak wér nuyu bépp euh, Serigne boo xamante ni toftal nga ci moom fii ci Thiès mënuñu ko wax te duñu jiital kër sëriñ Saliou Touré sunu maam di ko ñaanal yàlla. يلا خليكوا أجن الفردوسي تصنو سباركين نانا الإغال ما سنو سرين سرين خادم لو غيدل نحن كنت وقت كيس بي ستو ما كيس اس تدوسي جيدل سنو سرين سرين خادم لو غيدل نوي بباخ شريم شريف ناما اي دارا يا خوانتني سنو خالج لو سنو لبلا دونك نيون كي زيار بباخ ديكو جوخ واتي واي نوي كليف ديني ينيك سي كيس يب xam naa dama dañoo nekk si commune Thiès Est rek wante bu ñu yaatalee waa kër maam El Hadj Serigne Mouniru di sunu Serigne di suñu kilifa di suñu lépp moom ñu ngi koy ziar bu baax a baax euh, waa kër euh, Serigne euh, Lowen ñu ngi leen di ziar bu baax di leen sant di leen gërëm di wax ni rek tànn bii ñu ma tànn en tant que coordonnateur dama ni bett na ma ndax tey avec. Nous euh, yéene ak considération ak yëg-yëg bi intercoalition bi am choisir comme coordonnateur fii bi ñu nekkee ci néeg bi te yëguma ko ko te laajuma ko it day man considération bi am mais également euh, xam ni lépp benn la ndax tey xam nañ sama taxawaay intercoalition

mais il remerciait l'intercoalition Sam dirigée par le président Khalifa Sall. Et il remerciait l'intercoalition Takou dirigée par le président Macky Sall. donc si santé Abdou wax Bindon Pas démarche inclusive intercoalition donc nous voulons à l'unanimité nous tànn pour me diriger la coordination de la commune de Thiès Est loolu nag dama naan mission bu exaltante mais jàpp naa ni sama vice coordinateur yi nga xamante ni ñoom lañ toftal ci man euh, ki ci jiitu mon sama frère Papa Sirou Diop di quelqu'un de très engagé très dynamique lu xam li mu mën ci commune Thiès Est bi sama mag Samba Ba

mais également dico remercier si constance mais si defar si rassembler dans l'unité ba ba ñu def comité électoral depuis élection il faut me se passé Abdou Mbow mosul poste mais au contraire day xool nous mu defaree nous mu baaxee mu ko et jàpp naa ni tey euh, dañ ko war a c'est esprit d'ouverture et également républicain parce que l'on que ko mais si le Sénégal est dañuy défendre l'intérêt du Sénégal objectivement Tout xam nañ ko ni assemblée défendre l'intérêt des populations député d'office loolu nag fierté Thiès la ndamu Thiès la mais également dafa gën a yëkkatiwaat taxawaayu Thiès ci bi ñuy waajal daaneel assemblée Sénégal ñëpp toog kenn waxul quatre mois ñu def ko ci régime bi ba mu xamee ni ñu ngi jalgati moom moo njëkk a taxaw défendre l'intérêt des Sénégalais avec courage avec détermination mais également teg ko ci xam-xam. parce que nous aussi vous voyez, nous donc monsieur le président mon ami mon frère remercier générosité parce que nous avons générosité euh, euh, donc nous euh, nous rek di leen ko naa ni naan. jàpp naa ni li waykat li waykat bi naan saf na ba noppi kenn du sàppali jërëjëf jàpp naa ni gars yi nag waaye nag ñambaas ñambaas yaa am sër parce que fii nag fii nag mooy séntu si bi jot na nag. yow yow yàq yàq yàq na yéen si bi jot na du mën a yàq na booy bi yàq na yéexeet léegi. xam nga xam nga waa si bi jot na dañoo xumb. waaw. merci beaucoup jërëjëf merci vraiment di wax ni rek lii dafa neex. lii lii mooy ànd ndax nag ndax nag dañoo xam ne léegi nekkatuñu si pouvoir opposition lañ nekk dañoo xaw nekk ci mbooy bi mais ni ñuy féexal xol yi. xol yi dafa war a feeñ.

intercoalition dafa metti ndax choix yi day des fois day xaw a difficile parce que ku nekk day ñëw ak bëgg-bëggam ku nekk day ñëw ay ak intérêt mais jàpp naa ne tey grandeur bi am si montage comité électoral maa ngi koy doog a gis ndax tey dafa gën a yaatu parce que ñun suñuy taa bennoo la woon mu metti woon trop mais tey dafa gën a yaatu mais mu yomb lool dafa mel ni dafa mel ni xel mën na dal. si jongante bi ñu jëm ndax bu xol yi àndee ñëpp nekk benn jàpp naa ni si ndam rek lañ jëm te lu tax ma ne leen ndam lañ jëm mooy force vive yi nga xamante ni ñoo réunir ici à Thiès sàmm sa kàddu takku wàllu jàpp naa ni bu ñuy wax représentativité fii ci Thiès boo ci sempee ñooñu kaneen ku ñëw doo am 2 pour cent yu mat donc nak loolu nak liggéey la da ngeen ma denk nak. et je pense à assumer pleinement mes responsabilités parce que xam Ablaye Dieng xam que ni du demi mesures mais nak liggéey bi wax nañ ko en tant que coordinateur liggéey bi du sama liggéey le travail sera au niveau des commissions commission yi lim nañ commission yi nga xamanteni ñoo fi mais nak dañ koy ubbi commission bu si nek parti représentatif bu nek na fa ay éléments ñu dem dugg la commission parce que commission du ki nga xamante mo koy diriger parce que bu nek commission jeune il nous faut une équipe jeune très dynamique parti bu nek indi jeune ndax jeunes yi def bureau organiser wu pour que ñu mën au niveau des comités électoraux au niveau des centres de vote c'est autour des centres de vote si loolu lay lancer un message wax leen ni recommandation yi may njëkk a comité électoral autour des centres de vote à Thiès il y a 19 ou 20 centres de vote donc centre de vote bu nekk war nañu bureau bi comme ni ñu monter bureau yi fii comité électoral bu Thiès-Est nous avons répercuté répercuter au niveau des centres de vote donc après il wax ak euh, euh, ki nga comité opération électorale euh, qui est notre frère de l'APR Moustapha Diouf nous jël les pour que nous consulter les coordonnateurs au niveau des centres de vote Nous nous recevoir très rapidement pour que nous montions monter les comités électoraux au plus tard le mercredi après-midi ndax que le bi waroon commencer commencé mais xam ngeen ne intercoalition ni mu demee woon mbir yi xawoon a mais tey waroon fekk fait. wàcc ci terrain commencé donc le mercredi après-midi Nous nañ monter les comités électoraux des centres de vote mais également wax ni euh, euh, aussi une réunion parce que après damay les commissions.

gis nañ aussi télé bi nga xamante ni télé nañ ko gis nañ également stabilité économique bi nga xamante ni indi nañ ko ci réew mi parce que tey bu ñu demee ba réew mi ñu ñu commencé ñu di ñu noter à la baisse sur le plan économique xam ni dëkk bi am na jafe-jafe te ancien régime bañ fi doon bañ bañ ko fi bàyyee dañ ni woon le Sénégal même est en surfinancement. Sénégal am na koom-koom boo xamante ne war na ci mën a liggéey ñoom nag bi ñu ñëwee jàpp naa ni bëgg nañ wante dañu mënul ku mënul nag li tax euh, am majorité Nous ñi am expérience parce que parti yifinek. fi coalition yi fi am stabilité émergence développement donc nous, lañ bëgg majorité à l'Assemblée nationale pour que ñu mën a ànd ak ñoom liggéey pour Sénégal mën a jëm kanam parce que Sénégal rek moo ñu ñor programme bi nag bi ñu war a teg li si ëpp mooy la communication parce que wax dañu xam ci yenn élément de langage lañuy am pour wax ak nit ñi parce que wax ji du dara du dul proximité parce que nit ñi boo demul ci ñoom doo mën a wax ak ñoom wax ci ci mbedd jàpp naa ni nit ñi sax da nga leen di tànkal bruit yi jaru mais nak dinañ def Ben sortie bu mag a mag benn caravane je pense que suba euh, euh, président demain intercoalition bi war nañoo def ben caravane bo xamanteni ni ci ci ville bi lañ koy def pour sax wax nit ñi nak intercoalition bi jogna donc ñu lañ ci convier yéen ñëpp ngeen préparer wu suba ñu ñëw def la caravane de l'intercoalition, tak walu sam sa kàddu pour lancer la campagne

xam nañ taxawaayam moo sax mu commission des sages biñu ko jox mom néna day nekk adjoint jox ku ñuy wax Ndeye Ndiaye mu nekk la présidente de la commission des sages nekk ci donc je pense que ni loolu la il faut que ñuy démé générosité ku nekk li nga mën sa morom bu ko mëné woo ko ngeen àndandoo ngeen liggéey si du ma tërwe nag di te euh, accès wu ma ci jeunesse bi parce que nak jeunesse bi ñoo moom élection bi jeunesse bi ñoo moom les stratégies de campagne te vous pouvez travailler avec synergie avec mutualiser seen force parce que nous, de si ki démarré à partir d'aujourd'hui le président la jot na mais dama coordonnateur de la commune de Thiès de l'intercoalition donc jeune Abdou damay wax ak mom dina ko sante mu def jeune taxawu dama koy sante mu def dama koy mu dans le but de bien faire donc je suis suis ngi le euh, créer un cadre unitaire ngeen vraiment xol au niveau des centres de vote naka ngeen di mais également yéen mom campagne bi proximité wax ak nit ñi parce que nak affaire yi mom décliné no ba pare xam na ni ñi ñu nekkal en face bëggu ñu jàmm ñii ñu nekkal en face dañoo ñëw ak violence man nak du man nag du ma violence comme sama frère Abdou parce que man man samay mbir dama koy teg si calme mais nak Thiès waa na ku ko xam Thiès waa na ku ko xam xam ni amna fit am na fulla am mais on va pas répondre à la provocation parce que la peur s'est déjà installée dans leur camp loolu nag bu leen fekk ñun nañu liggéey avec xam-xam avec stratégie xool autour des centres de vote naka la ñuy duggee ci kër yi waxtaan ak ñoom sensibiliser leen ci jafe-jafe yi nga xamante ni moo nekk euh, moo nekk ci dëkk bi

moyen moyen gañewul élection donc je pense que ni loolu damay ñaan mu bañ ñu tardel. nañu xam ni tey ku nekk da nga war jël si si jël si sa bopp pour xeex ngir intérêt Sénégal xeex ngir sa avenir doom xeex ngir sa bopp xeex ngir sa réew donc nag li fi nekk si mooy lu mu ndaw ndaw ndaw dinañ ko bokk ñëpp mais nag bu ñu attardé wu si demander des moyens parce que je pense que ni ñii jël réew mi tey ban ko doon jël

Abdou wax na ko intercoalition sàmm sa kàddu takku wàllu benn liste la am fii ci Thiès mooy liste bi nga xamante ni Barthélémy Dias moo ci nekk donc loolu lañuy dem campagne wax ak nit ñi euh, informe leen ni Barthélémy Dias bii la ñu war a jël dugal ko ci kër yi donc dinañ jël spécimen yi ñu tas ko jàpp naa ne suñu arme de campagne mooy spécimen yi mais également var yi nga xamante ni bon information je voudrais aussi informer tout le monde que l'association des anciens calots nous aussi je les ai reçus et ils ont décidé d'accompagner l'intercoalition pour le gagner mais une information importante parce que Sang Ablaye wax mandataire avec la coalition sans et kàddu il y a des représentants dans les bureaux de vote. sàmm sa kàddu ak takkuwal waaye ñoom ñépp sàmm sa kàddu la ñuy voté école bi day am mandataire sàmm sa kàddu am mandataire takkuwal ngeen xam ne yéen ñooñu yéen a far pour que ça soit clair parce que lu kenn mën ñaara ko ko daan su ngeen diggee ci biir bureau de ba yéen ñaar ngeen waaye benn benn bulletin ngeen am donc ça aussi pour que ça soit clair nit ñi xam ne day am mandataire sàmm sa kàddu mandataire takkuwal waaye a ñaar manam, un en deux voilà c'est comme ça que ça se fait bon nee le bu ñu jël Macky Macky vais faire ko def poste. <laughs> Donc, le coordinateur j'aurai toutes les informations je pense qu'on peut s'en tenir à ça di wax ñëpp demain, une forte mobilisation des jeunes des femmes pour que 15 heures nous tassent siège pur xam naa Ablaye dina dajale ñi mu war a àndal ñun ñu dajale ñi mu war a àndal ñun ñëpp ñu converger vers le siège du pur pour que Thiès nag xam ne foog Thiès yëngu suba suba foog Thiès yëngu ñu ngi leen di sant di leen